quintessence de la cérémonie moo doon euh, ñu ñëw d'abord présenter le comité de suivi bi boo xam mettre nañ en place pour finaliser ko par le cadre de concertation mm-hmm. cadre de concertation boo xamante ni réunir toutes les forces vives du village mm-hmm. pour combattre vers la réunification des 34 quartiers originaires de Thiaroye Pourquoi réunification Donc, ça veut dire qu'il faut avoir éclatement. Parce qu'on a été touché par le découpage administratif de 1996. Euh, découpage administratif mm -hmm. Sur les 34 quartiers traditionnels, il y a un regard à moi. Il lu bari yóbbu ko bàyyi fi onze quartiers lii ñu yóbbu ko ci Djidah Thiaroye Kaw lii ñu yóbbu ko Yeumbeul Sud lii ñu yóbbu ko Diamaguène Sicap Mbao tey ñuy dox ba yàlla def terre bi ñëw am ay quartiers yu mu amputé te Thiaroye Gare léegi se avec neuf quartiers Thiaroye Gare bépp communauté bu ñuy wax fii ci département de Pikine mën naa wax ni moo ko jur parce que Thiaroye Gare ñu ko créé vers 1800 sous de Seydina Issa Rohou ci ndigalu Seydina Limamou Laye Thiaroye Gare di dox di dox day yëg si 96 ñu daggat ko te li ñu daggat fekk ne moo doon bi nga xamante ni nii daanaka mu ëppoon solo ci Thiaroye parce que marché bu bees bi ñuy wax tey day doon premier cimetière Thiaroye Gare ñu délocalisé Jacques Chirac bi ñuy wax ne Djiddah Thiaroye Kaw la bokk tey Thiaroye Gare centre ce site Thiaroye la ñuy bu Thiaroye également ñu jël ko affecté soo ñëwee côté bi féete jàmm gën si Kambaaw le CM Diawar Diagne bi nga xam ni moo nekkoon le sat de Thiaroye fa lañ daan football mag ñi di xeex di xeex di xeex ba ñu defal ñu ko CM bi découpage bi ñëwee daf ko jël yóbbu ko jàmm gën si kàddu centre social Thiaroye Gare li ëpp solo ci biir Thiaroye Gare muy ay wàllu infrastructure ñi ngi nekk ci biir camp bi pour accéder dem ci infrastructure yooyu mu nekk ay difficulté yu mag donc Thiaroye Gare di jànkonte tey ak ay difficultés yoo xam ne que ça soit sur le plan découpage administratif wala muy infrastructure ak équipement yi ñu ngi jànkonte ak jafe-jafe yoo xamante ni tey dafa jot nag pour doomu Thiaroye parce que suñu ko jëlee ci 34 yóbbu ko ci 11 quartier jëlee ko ci 11 quartier tey mu ñëw ci 9 quartier ñu dégg ci wéyu bëy ñu ne Thiaroye Gare Diamaguène Sicap Mbao ak Tivaouane Diacksao dañu leen boole bëgg a boole def ko benn Caaroy Haute Vision ñoo parce que jàmm gën ñoo ko jub ñoo jub Tivaouane Diacksao ba Caaroy Gare di am fii ba route de Rufisque la existé wu bu ñu ñëwee aussi ñu ne dañuy jël par exemple une partie de de Caaroy kaw boole ko ak car Gare euh, Caaroy Gare rattaché ko Caaroy kaw kooku responsable politique bi ko wax c'est que l'histoire l'histoire l'histoire est là elle est réelle kenn mënu ko manipuler pour quelque raison tey doomu caaro yooyu jóg nañu booloo ci benn cadre de concertation lépp loo xam ni mooy tawatu caaro gaar que ça soit ci wàllu découpage bi que ça soit ci wàllu développement wala muy ay infrastructure taxaw na pour jàkkaarloog état bi mais lépp lu ñuy jàkkaarloog état bi tam ci kaw yar nañ koy teg ci kaw teggin lañ ko wax parce que lépp lu ñuy def ci ànd ak légalité ku wax jàkkaarloo war a nas ay pexe pexe yooyu yan la. maanaam pexe mooy waxtaan ak doomu caaro yëpp. sottante xalaat tënk un mémorandum boo xamante ni dafay jël tous les problèmes du Thiaroye Gare encore ñu déposé ko devant gën cee fes bokk na ci fexe ba ñu delloo leen ñaar fukk quartier yi waaw li ñu bëgg mooy Thiaroye ñu ni réunification des 34 quartiers originels mooy ñu delloowaat Thiaroye Gare parce que ñu bëri ñu ngeen génn génne gar Gare moom ñu suñu tout pendant cette tey seen souhait principal mooy ñu dellu si parce que li ñu dal dafa métti euh, dañoo dal une frustration générale frustration générale boobu dafa jur une frustration émotionnelle une frustration sentimentale une frustration comment dire fraternelle parce que ñun jaaree foofu mooy ndey baay mag rakk noonu lañu àndewoon toppalante joxante cër loolu la ñu bëgg aussi continuer ba léegi te it li nga xam daf ñu dal tey daf ñu taxa ñu perdre suñu identité villageoise parce que moi quand on me dit tu n'es plus de Thiaroye mu ma juddoo Thiaroye Gare yaroo Thiaroye Gare yaa ngi ñu xëy bis ñu ma judd bokkatoo Thiaroye Gare sama te dara defu ko loolu ay politiciens yoo xamante ni ils étaient en quête de représentativité détaché dëkk bi nu mu leen neexee pour bañ ay président wu coordination wu parti socialiste si nekkoon am ay tendance ñu jox kenn ku nekk une partie nga def ko commune géré que da ngeen di ragal euh, dañ leen bëgg a maanaam <coughs> euh, siif seen poumon économique bi du euh, parce que poumon économique bi xamante ni Thiaroye am na ko ko bëgg ñi ko amul bëgg nañ ko ñi ko sori woon ca xam ni xëy na bu ñu ko yóotoo ngir ah. doole gi leen yàlla may ci jamono ñu toll daañu ci jàpp ah. appartient à Djidé Thiaré Kaw qui étaient les anciens cimetières de Thiaré Gare si aujourd'hui Guédiawaye daf ko bëgg a c'est parce que potentialité économique ba fa nekk moo tax donc Thiaré Gare et aussi ñi ko xam nañ ko bëgg a rattaché ci ñoom potentialité moom la ñu soxla mais yi nit soxlawuñu donc loolu nag ñun disons Thiaroye boo ko yokkul delloo woo ko na meloon